ci avocat yi la ci enquête bi it bokkoon naa ci ci enquête bi yaakaaroon nañ nekk mbir mi du sori wante gis nañ enquête bi nu mu gaawee ak ministre bi ni mu réagir nu mu gaawee loolu nag ñu jàpp ne que du intéret justice su Sénégal parce que magistrat yi fi mu ne lii ñuy topp seen njiit du dara du xoqatal waruñu nag xoqatal ñi nga xam ne que ñoom tey ji ñoom ñoo tax équilibre am ci biir réew mi parce que justice moom mooy indi équilibre ci biir réew mi sécurité bu amee aussi day fekk ni justice mu ngi dox normalement kon bu fekkee ne que magistrat ñu ngi leen di xoqatal di leen di tiital dinañ dem ba duñu mën a defati seen liggéey te loolu lépp pour mun a takk leen buubu jàmm maanaam mun leen diri fu ñu bëggee te loolu mënul nekk parce que nguur gi dafa am doole boo xam ne que ak doole ak ay ay frontières xaw ma nu koy waxee ci ci ci ci wolof yoo xam ne que yoon daf ko tëral justice aussi dafa am doole ak ay frontières yoo xam ne yoon daf leen ko jox kon boog waruñu mën a nangu que que que nguur gi mën a di xoqatal ay magistrats ba di leen di tiital. di leen di yóbbu foo xam ne que mun nañu leen ñàkkuloo seen liggéey maanaam mun nañ leen dàq ci liggéey bi kooku nag magistrat yëpp dañu war a taxaw ndax tey jii bu fekkee ne que seen njiit lañu ñu song loolu day wane que ne lii raam ca ñag ba la jëm seen njiit bu fekkee la ñu bëgg am nañ ko ci moom ñoom ñëpp nañ fa jaar day mel ni ay xar yu ñuy tëral di reen di rek bu fekkee man sama bopp sama bopp laay waxal fi ñu toll maa ngi ñaan képp koo xam ne que magistrat nga te nga sol robe bu fekkee ne que mbir mi continue bés bu ñuy wax waxu Téliko na nga teew pour defendre ko yoon may na la ko avocat yit yi nga xam ne que ñu ngi ci Sénégal mot nañu léegi lu mot juróomi téeméer ku ci ne it na xam ne que tey jii bu magistrat yi bu ñu leen xoxatalee justice dootu fi amati ñun ñëpp lañ summi suñu rob kon boog avocat yëpp it ñaan naa leen lii bu continuer ñoom ñëpp nañu sol seen rob bés boobu ñu teew ci biir salle bi maa ngi ñaan aussi organisation des de l'homme yi nga xam ne ñu ngi fi ak sur le plan international ñu xam ne que tey jii indépendance su magistrature moom moo fi tegu indépendance su autorité judiciaire moom moo fi tegu c'est la bonne marché de la justice dégg nga et du service public de la justice ñoom it boo ñu takku te bés boobu it na ñëpp teewee ci buntu cour suprême